paj yi kas kastoor laa ko jële cité des eaux ci fo ci foo bi boo ko ba avant nga yegg ci gendarmerie frontière foofu laa ko jële pousse pousse la yor bi ma ñëwee ma waxaale moom mu ni ma parcelle laa jëm unité vingt cinq ma jël ko ñu waxaale mille trois cent la wax ma ne ko dégg ma mille trois cent laa yor ma it ma yërëm ko ci handicapé gi mu yor baan bi ma ko yërëmee ci handicapé gi da di koy jël man ko yéegal ñëw wàcceel ko pousse-pousse bi wàcceel ko pousse-pousse bi fexe ba mu yéeg mu yéeg bi mu yéegee ma jël pousse-pousse dugal ko ci oto bi ci ginnaaw bi mu dugalee oto bi mu ko dugalee bu dugalee pousse ci oto bi ci ginnaaw ba pare ma départ ak moom ma déparé mu jël loxo bi daal di koy teg ci sama pooj bi bi mu ko tegee sama bi mel ni koy jafandu yoo jàpp ma jàpp bu dëgër ma jàpp ni day jafandu bu ma daal di taxaw takkal ko ceinture bi conseil ko bi ni ko baax na mun na waa baax na ma continuer mu daal di jël loxo bi sama pooj bi di ko raay ba yàgg mel ni ko avancé ci sama teg ci loxo bi. baaraam ma yëkkatiwaat loxo yi ni ko daa baaxul pour defar ko toogin bi yaakaar toogin bi daa baaxul ma baax na ma bàyyiwaat ko mu jëlaat loxo bi tegaat ko sama pooj bi. ba man ma commencé jàpp na affaire yi sëriñ yi taraxe taraxe laa ko commencé teg ma bàyyi ko xel ma ko ne dawal ba yàgg mu jël loxo bi di raay sama di bay ba mu no baan kii li ma def baan mënu ma koy expliqué baan ma it ma bàyyi ko rek ma yëkkatiwaat loxo bi encore ma loxo bi ne ko yow sa loxo sa toog yi daa baaxul wala qu'est-ce mën ma noo garaawul ma ne ko ah ma non ma dal koy buuxaa ma dal gën a toog ci ma ne ko yow loo bëgg mun ma noo dara ma ko dawal ba agsi mu jël loxo bi teg ko ma dal koy bàyyi complètement nag faletuma ko ma ko dara man muy dawal rek ma ne ceel ma ñëw ba si ba fi mu dëkk ma agsee ba ci marché kii bi marché bu marché vingt cinq marché bu ndaw bi foofu mënatu a wax moom parce que foofu àndatul ak sagom baan sagom àndatul ak moom lay wallaay talaay baan affaire bi man ko mun lee bëgg lépp ci man taximaan laa gis naa loolu daje na maa loolu mais lii musuma gis lii baan barke Seydina Muhammad ndax man anam bi mel moom ak defin nu mu def moom a jaaxal baan kooku baan dama bëgg nga dem ba yegg fi mu dëkk baan nga laajte ko baan ñu bàyyi xel baan xale yi mu dëkkal ak moom baan man baan loolu kese laa bëgg baan parce xale yi baan man ñoo ma ci yor ñeneen ñoruma ci dund xale yi mu dëkkal baan kese kese kese kese lu leer laa la wax baan te barki rasulullah yi mais wóor na Serigne Saliou Mbacke baan man bëgg naa bi baan ba xam naka la wala kii baan quest moom lii lan la baan moom lan moo indi lii baan moom ak lan moo ko jaral lii baan man baan bëgg naa loolu baan. man baan waxuma la tegg baan man li ma ci bëgg du de baan dama bëgg man waa ji xam nga maanaam man baan waxuma la taximaane mais fa dëkk laa bëgg baan xam nga. xale yi fa nekk dama la wax ni la gis nga bi ma bi ma agsee bi mu pousse-pousse bi mu wàccee ay xale ñoo ko njëkk a gàttandu baan songu pousse-pousse bi jël mbuus yi man xale yooyu lay gis te xale yu góor yooyu man mu yàq leen ci effet ba mu màggaale ko baan parce que taximaan yi yaakaar naa ne képp kuy taximaan rek defoo ko a baan même man xale yu ndaw yooyu baan après man mooy li ma jaxase baan mais du leneen baan su ma sañaan daal barke Rasulullah fa di nga ko topp xam nga ñu bañ koo bàyyi xel bu baax a baax baax a baax pour ñooñu ñu mu dëkkal ñoom ñu xam ko baax parce que baan kooku maanaam kenn munu koo foogee comme sës boobu noonu baax mun ne xanaa lu dul yow nga toog ak moom wala nga nekk moom wala nga dund ak moom li ma dund ak moom baax à part ça ku doon baax mënoo koo foogee baax lu leer laa lay wax baax xale yooyu kese man ñoo ji sama problème man billaay wallaay. moo jógee RFM damaa mujj dawalaatama to dawaat ba fa ma ko wàcce woon parce que muy heureusement benn gars ma fekkan foofu bu ñëwaatee mooy yaa fi jaaran léegi dafa fàtte après ma toog nga ba expliqué ko ma ne ko ndax xam nga gars bi mun ma non sama dëkkandoo la fii la dëkk quoi ma ko gars bi day mun maa ma ne borom ñaari tur la quoi mooy bu ngeen ko xel ak xale yi quoi mun ma grand li may wax nii jaaxal na ma torop li leer laa lay wax magum jëmm laa expliqué ko mu dal ni tekk torop te su ma sañoon billaay wala kalaay xale yooyu foofu mu dëkk ci koñ ba noo boo ko toppan rek dina yàq xale yi baan loolu man ma maa la ko wax ndax bi ma teg putu xale yi daw sonko ñu tax ñu daw sonko mi ngi leen di jox xaalis wala mu leen jox mi ngi koy sarax xam nga ñu yaakaar na ay seen yaay yaakaar ni lii la leen di fekk na amaana moom ma ngay dund ak ñoom leneen lu bokkut ak loolu ndax fu mu kum ci wétal rek mën na laa def loolu xëy na après soo ko màggaale mooy mooy loolu doo ci am la neex